mais dégg nga cey zar cey zar kawman day tukki kawman day tukki cey zar cey cey zar mais mais xam nga bu slogan bu bees Zarko man mu lu def muy yéem Zarko le phénomène kii doomu ndakaaru bi ngay waxal de doomu cëddem yàq jëf nguy salaat ak ngot ah, hmm. ah, tuuru ndakaaru ba Serigne Baba mi ngi nii saxaar sarax bee ngi nii yow ah. borom ndakaaru dama ne sarax baa ngi nii mais man dama jaaxal gars yi gars yi naan Zarko ko pulaar Zarko njaago la hmm. Zarko lébu la njaago la lébu pulaar pepel susu bambara sooninke baynunke jaaxanke lépp séeréer waalo waalo tout ba pare rab la rek lépp ba pare rab la rab la mën la sarax baa ngi nii xaal pulaar bi amul lébu beeg pël bi mais Zarko état min woni bu baax mi jagat sa jagat yaa dëgër yaa dëgër yaa dëgër yaa wow kii dama paa bi dal lakk ko mais mais mbaxane bi mbaxane bi mbaxane bi mbaxane bi mbaxane bi yaa dëgër man day tukki rek mais mais mbaxane bi kan nga fi génn dama la kii gutsi la déggoo ma de parce que yi bokkut ak yéen ah, transitaire bu mag bi. kan la Tall. mon ami mon frère Tall. la collant yi bokkut ak yeneen collant ma jaaxal Zar adversaire ñaa bu ndaw di xale ba nga xamante ne bii macha allah dafa nekk ci yoon ñu ne Zarko dafa dafa dafa aay xale bu nekk ci yoon mais xale bi bokkut ak xale yi nga doon bëral te daa am lu mu wax. waaw nee na Zarko liggéey moo koy daan. waaw te keroog bu mu nekkee Maroc. waaw gis ngeen mu doon escouade di liggéey. waaw moom ñaabu ndaw liggéey koy daan billaay wallaay. déggoo ma de. barke Serigne Bamba kii deen man damaa xaw a nelaw rek mais vie ngolo la waroon jël <laughs> wala motaar guy ah. mu coono ci baa ñu jooy ko rek fis. waaw ñaabu ndaw cuuj bu jigéen la ñu ne ay brahman lañu. non la dëgg la bàyyi mi kejek kejek bu jona ñu ñu def xoolal. ba pare xam nga la daa màgg léegi rek commencé nag boobu booy géey waaye commencé naan dawal mais ngaaka la man xam nga li may wax bu baax cey mata excès de confiance sa booy bi man non man bi ma jógee ñëw fii la am confiance kii moo dëgër moo wow kii moo dëgër moo dëgër na la am confiance keroog nga nekk ci ginnaaw Modou Lo daw nga gis ñaabu ndaw ñëw ci làmb ji tuus rek Zarko bëgg a lay barrière loolu dama ko tënk mu daw génn dafa daw lekk mu daw nga daw dem dafa mu daw dafa génn Ciss waxal boog. mais cette fois tey je suis que policier du ñu am liggéey. Ah, non tey tey kenn du am liggéey wala. non tey eh, bi yoon noos la quoi. tey xamuñu xamuñu problème mooy grève dañoo mun noos. waaw dañoo xam xew quoi. Eh, moo tax xam xam na xam nañ ni booy bi tapet la. Hmm. moo tax ñu def affaire français yi pour xelam dal. moo dëgër ah, ñaabu ndaw kay waxal dëgg nga ne ñaabu ndaw tapet la espagnol. non affaire espagnol lañ ko indil. abla abla amigo habla habla amigo message che mando ti io che chiede che ti dica ti dimmelo tu a ver che chiede che ti dica lo bëgg mo Zarko c'est le moment aussi tey mu waxtaan ay fansam ndaxte Zarko international la Zarko da ngay dugal benn vidéo am tey dafay naaw ndax lan ñuy Zarko la mooy Zarko tey Dakar dañ koy suivre mais international te Zarko porteur de voix la Zarko lan ngay wax si nouvelle an bi tey ban message ngay lancé sur la jeunesse ban message ngay lancé si làmb. waaw mais ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi xam nga sant suñu ñaari waajur. di gërëm sama maam bu baax a baax di gërëm samay euh, samay xarit samay àndandoo di baalu ñëpp àq di sàkku ñaan ci ñëpp xam nga bépp ethnie bu nekk Grand Yoff rek ngi sàkku mm-hmm. ñaan ci yow doomu zone 7B yëpp nañ ñu ñaanal xam nga ñu dugg dem ci la kat yàlla defal ñu ndam ñu ñëw féetewaat ko comme d'habitude mm-hmm. di wax jeunesse bi surtout euh, gis nga Zarko rek. dafa mhm. doy eh, référence exemple mhm. le plus grand exemple pour la jeunesse de Grand Yoff Zarko boo ko xoolee rek. Mhm. bi muy jógee euh, Europe daf fi ñëw ak loxo neen. mu ñëw liggéey. dëggal boppam. xam nga gëm boppam. xam nga di teel a yeew di entraîné di liggéey bu yàlla jagleel ko tey li mu ko jagleel comprendre nga ñu koy sant yàlla bu baax a baax di sant tamit suñu suñu waajur. ñoo xam ne ñaan kese moo ñu moo ñu fi téye te moo ñu yóbbu Euh, indi ba fii nii. donc jeunesse bi nañu xool ci Zarko rek. liggéey. ak élection jëm. liggéey gis nga doomu gaynde dama ni la gis nga euh, nit boo nekkee jeune. da ngay tax da ngay defar sa suba. da mm. ngay defaree sa suba. du sàcc du agressé. da ngay dem liggéey. da koy ñaq jëriñu. man sama ànd ak Matar Gueye gi du hasard. parce dafa xeex loo xamante ni man dama ko bëgg te dama ko naw. malgré nag jeune mënoo ñàkk jaar jaar. mais actuellement jeune bu ci def naka su dul noonu rek yaa ko tay parce que ñu xale yëpp xale amatul. ñëpp a yeewu. kon nag sama gars yi li ñu leen di ñaan. Grand Yoff 109. Grand Yoff 109 Grand Yoff sans violence loolu Grand Yoff na ma ko. Grand Yoff ay noble la fi dëkk. waaw ay noble dëkk donc damay wax jeunesse Grand Yoff rek bu ñu nangu kenn ku ñu yàqal Grand Yoff te nañu xeex ba yóbbu turu Grand foo xam ne mosuñ ko fa yóbbu dégg ci àddina man Zarko loolu moo ma delloo si Europe looloo tax may xar sama tànk tubay pour lan pour ñu gën a joxaat ci Grand pour ñu respecté waat image yu Grand Yoff image yu Grand Yoff nag weesuwul toutes les autorités autorités yi nga xamante ni ñu ngi fii dëkk biir Grand Yoff nañ jàppale jeunesse su Grand Yoff. mais Zarko est-ce que xam nga làmb ji ci Grand Yoff liggéey nga ci lu waar. parce que bi nga ñëwee def ndam. na fee uh-huh. que tey ñu bëri sax bu daanoo. moo daan boppam ndax excès de confiance. dafa wóolu boppam ba mu ëpp di féliciter Nandi Fall. ci mm-hmm. victoire bi. waaw victoire am bi Nandi ñu koy féliciter bu baax a baax a baax. Mm-hmm. di wax waa CNG nag. buñ ñu buñ ñu jaxaseel buñ ñu yaaxal naan moo daan mhm. jàpp nañu moo daan parce que man dal na ma mhm. yaa ngi comprendre dama mujjee nangu mhm. naan ni moo daan jënd bu leer dañ ko jox victoire am nañ ko bàyyee ak victoire gis nga ñii suñu ànd man ak ñoom do hasard parce que depuis bi ñuy booy la ba léegi yàlla def man may bëre yàlla def ku ci nekk am na mala sumaay benn ndog ndog ndog ci sa àddina bi nga dellu si waatee am nga benn maanaam beneen image ak beneen xel boo xamante ne moom ngay moom ngay def ci jeunesse bi comme dafa tëdd kaso rek génn Sénégal dem Europe comme kaso la rek comprendre nga dem xalaat li nga xamante moo ko war a jëriñ mu ñëw réinsérer waat boppam ba pare nawloo waat boppam ba pare teg ko ci yoon di liggéey kon keneen ku jóge feneen ñëw di xeex leneen tamit doomu Grand Yoff Grand Yoff ñëpp ci war a taxaw ñëpp ci war a jàpp parce que gaynde bu ñu naxante dañu waxante dëgg Grand Yoff kenn mënu ko defar ku dul la population de Grand Yoff la jeunesse parce que jeunesse bi ñoo dese temps am yaa ngi kenn ku ñu ko yàqal te bu neexee yàlla kenn du ñu ko yàqal ñun la sama bos teg ko pour garaaf nekk a dugg ci kër yi jàppalante xam mm. loolu la garaaf xam bu la neex ngay añee bu balaa ñu laa bàyyi nga dem Zarko benn question rek ñu mooy Zarko combat bi gis nañ bi si bi état macha allah dafa yenn supporters loolu dañ koy denc dañ koy denc ba ci kanam dañ dem ba ci kanam mm. Zarko du combat bi kese moo koy indi mm. Zarko dafa ñëw pour jël roi dafa ñëw pour jël roi des arènes indil ko waa zone 7 de Grand Yoff kon Modou Lo daf la yow tournant bi la maa koy jël tournant bu muy dagal ñoom Franc maa koy Franc góor a soog ma de na kii yow Talfa ñoom ñëpp maa koy <laughs> mais ma li ma jaaxal mooy da ngaa jóge Dakar hmm. ci banlieue bi ngi jël xale xam ne ni c'est le sousou de la na beneen xale boo xam ne ngi doon wax ni que soo jërutoon ñaabu ndaw sa digg ak Jackson day am ñi naan sa diggante ak la tegeer ñëpp ñoom ñëpp ci nañu liggéey rek ci benn ngemb ci benn ngemb li ay Jackson yi yëpp am nañ ci ay adversaire am na am nañ ay adversaire ci écurie bi. ci biir Grand Yoff ci biir Grand Yoff